الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون عباد الله إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص فالجاهلية كما يصفها الله ويحددها القرآنه هي حكم البشر للبشر لأنها هي عبودية البشر للبشر والخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu boroom subhanahu wa taala moo nuy laaj ci suratul maida aaya juróom fukk muy aaya 50 sunu borom di ñu laaj laaj boo xam ne dafa ànd ak bañ inkaar mu ne afa hukma aljahiliyati yabguun waaw yéen mbaa du attey ceddo moom ngeen bëgg aljahiliya ci islam mooy balaa islam ñëw balaa yàlla yónni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam jamono jooju nit ñi lañ daan dund loolu la islam tuddee aljahiliya loolu nag li muy firi ci sunu làkk ñun mooy ak ceddo da ngay dégg fii ñu bari ci ñun ñu ne la sunuy maam ay ceddo lañu woon baatu jaahiliya la ci tubaab mooy ignorance koo xam ne li muy def xamu ci dara ku réer loola tax yonent bi alayhi salaatu salaam tuddee woon abu jahlin abu jahl waaye tuddul loolu yonent bi ko tuddee dàkkantalam la jaahiliya mooy lépp lu dul diine islam jaahiliya la léeg la nga dégg ñu ne diw intellectuel la bu fekkee xam na diine su xamul diine bu amoon cinquante doctorat jaahil la ci islam kon jaahiliya la ñu yàlla di laaj yàlla nee nañu ndax yéen jullit yi attey jaahil yi ngeen bëgg afa hukmal jaahiliyati yabguun ndax da ngeen a bëgg atte woo lu dul diine ndax da ngeen a bëgg a jël atte yàlla teg ci suuf jël atte mbindeef teg ci kaw xoolal yàlla bi mu ne afa hukmal jahiliyati yabguun lan la toppal ci aaya bi mu ne wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinuun allahu akbar ana kan moo gën a rafet yàlla atte ndax am na ndax am na ku gën a yàlla rafet yàlla aw doxalin ndax am na ku gën a rafet yàlla aw tëralin ndax am na ku gën a xam yàlla lim bind alaa ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabiir yàlla nee na subhaanahu wa taala man mi bind li ma bind maa ko xam looloo tax man yàlla moo mu bind li ma xam li ma bind ma xam ko maa wax ci yéen ngeen àtte woo li ma indi borom téere bi nee na maana aljahiliya mu ne yatahaddadu bi hadha nas su ñuy wax ak ceddo mooy lan mu ne ci texte alquran bi afa hukma aljahiliyati yabxuun mu ne buñ koy définir di ko firi comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee ci alqur'anam mooy hukmul bashar lil bashar mooy doxalin mooy tëralin mooy dundin mooy atte bu nit indi di ko atte moroomam loolu mooy jaahiliya nit kuy atte moroomam nit koo xam ne dafa tëdd ci biir néegam wala ànd ak ay mbooloom wala ànd ak ay korelam xool ay mbiram ba mu neex ko mu génne indi ko ci nit ñi ne kaay leen ci lii ci lii laa leen di woo yàlla nee na loolu mooy jaahiliya li may wax nii ku ci bëgg a am référence mu leer am na téere tafsir bu tudd zilalul quran bu said xutb rahimahullah ashahid soo demee foofu ci suratul maida aya 50 nii ma koy waxee noonu la ko fa waxee kon mu ngi ci tafsir boobu yéen ñi bëgg a am référence yi mooy hukumu basar lil basar ceddo mooy atte jaahil mooy doxalin bu nit tëral indi ko ci ay nit di leen ci atte te nit warul atte nit ci doxalinam jullit moom fan lañ ko war a atte ci yàlla rek subhanahu wa taala yàlla lan lañ wax fa in bu ngeen wuutee ci benn mbir lan la yàlla wax fa rudduhu ila allahi wa rasulihi delloo leen ko ci yàlla ak yonent su fekkee am ngeen benn mbir wa maxtalaftum fi shay même bu ngeen ci amee wuute yàlla mu ne delloo leen ko ci yàlla ak yonentam ñaareel bi mooy li annaha ubudiyatul bashar lil bashar lan moo tax mu nekk atte nit muy atte nit waaye mu ne mooy jaamu nit nit moroomam nit ab mbindeef ab jullit yàlla sàkk ko ne ko jaamu ma mu bàyyi yàlla jaamu keneen loolu mooy jaahiliya ba tey wala nga ni mooy alxuruju min ubudiyatillah jaahiliya mooy nga génn ci jaamu yàlla jaamu ji mbindeef buur bi subhanahu wa taala buur bu tal ne yàlla bi mu lay bind kenn fekkewu ko wàcce la ci kaw suuf yónnee la yonent wàcce ci yow téere sant la jaamu nga bàyyi jaamu boobu dem jaamu keneen loolu mooy jaahiliya dëgg dëgg dëgg dëgg mu ne wala mooy al rafdul uluhiya lillah nga bàyyi nga lànkal yàlla ne yàlla du yàlla loolu nooy lànkalee yàlla du yàlla mooy doo taxaw joxoñ yàlla asamaan ne ko doo yàlla déedéet mooy yàlla da lay sant ne la sama doxalin bii laa bëgg nga doxal nga lànk loolu mooy bañal yàlla ñu bari ci ñun suñ leen di natt ci texte yi dañoo gis ne dañoo bañal yàlla bañal yàlla du man julliwuma du wooruma ci la bokk waaye li gën a rëy mooy doxalin bi yàlla tëral yàlla ne la jaaral nii nga lànk loolu mooy bañal yàlla loolu nag ku ko def yaa ngi ci jaahiliya wala nga ni mooy al i'tiraaf fi muqaabili hada rafd bil uluhiyati ba'd al bashar wala waxuma lankal bi nga lankal yàlla waaye nga nangul ay mbindeef ci lenn lu yàlla bëgg nga nangul ko ay mbindeef di leen ko defal bàyyi yàlla loolu tamit mbokk yi ci jaahiliya la bokk wala nga gën a wàcc ne mooy nga jaamu keneen ku dul yàlla bil ubudiyati lahum min dunillah nga jaamu ñooñu sax nga xam ne ay mbindeef lañ la yow dara lañ la mënalul bi la yàlla di bind ñoom fekkewuñu ko soo deewee kenn ci ñoom du ci mun dara dañuy ñëw ne ko diw dee na mu tiit ne loolu kañ la xanaa dafa feebaroon koo fi yaakaar te du yàlla boo deeyee sax du ko yëg day ñoo ko diw dee na kaari maayi wi holnde o maayi nde maayatande o tinani o anda hol waktu maayiɗa o anda hon saaha o anda heure o. ko kanko noon ƴettunoɗa alhaali ma fof tottoɗamo hande noon a maayi o fugge suudu makko jamma 3 heures du matin wewi o attini almudo ma o maayi o diwa o jooɗo wi holnde o maayi o anda haydara saɗa rewa rew allah kanko andi kanko tag ma booy jaamu jaamul yàlla moo la bind keneen ku dul yàlla dara la la mënalul ba pare yàlla bi mu la fi indi tàgguwul kenn bu la fi jëlee du tàgg kenn allahu akbar mbokk yi inna aljahiliya fi dawi hada nas laysat fatra min alzaman walakinaha wadun min al awda lu bara bari boo déggee ñu naan ñun démb ca ceddo ga lañ nekkoon ah tey ba tey ci ceddo lañ nekk ndax ba léegi doxalunu doxalinu yàlla ci sunu dund ba léegi ci ceddo lañ nekk kon ndeke ak jaahiliya du jamono bu paase aw doxalin la wu ay nit di dund suñ ci nekkee rek ba léegi ci ak ceddo lañ nekk ci jaahiliya lañ nekk waaw du jamono moo tax mu ne laysa fatra du jamono boo xam ne mina zaman dafa paase du musa paase moom jaahiliya walakinaha wadun min al awda waaye aw doxalin la aw tegin la aw dundin la woo xam ne moo fi nekk ba léegi su fekkee nun jullit yi ni nuy dundee ba léegi mooy ceddo ya nañ doon dundee kon ba léegi ñun ay jaahil lañ mu ne hada al waddu na hada al wadu yujadu bil ams wa yujadu al yawm wa yujadu al ghad ceddo googu mbokk jullit yi am na tey amoon na démb waaye dina am suba lu tax ndax dafa jël formule dafa jël melokaanu ceddo ga balaa lislaam ñëw ceddo googu ba léegi moom la ceddo gi jël dafa ñëw di opposer l'islam dafa ñëw di weddi doxalinu yàlla dafa ñëw di contre islam mu ne wannaas fi ayi zamanin wa fi ayi makaan imma annahum yaxkumuuna bi shariati llah duna fitnatin an badiha an badi minha wa yaqbiluunaha wa yus wa yuslimuuna biha tasliman fa hum idan fi diinillah mbokki jullit yi nit ñi fu ñu mën a nekk jullit yi fu ñu mën a nekk ci jamono bu nekk ci waxtu bu nekk saa yu nu jëlee doxalinu yàlla atte yàlla di ko dund ñu dékku fitna yi leen nit ñi di teg ñu ragal yàlla nangu coono àdduna ba jël li yàlla bëgg nañu xam ne kon nit ñooñu ay jullit lañu waaye nit ñi saa yi ñu ragalee seeni moroom saa yi ñu bëggee ay intérêt saa yi ñu jiitalee njariñu àdduna ci li yàlla bëgg ba ñu bàyyi li yàlla bëgg nañu yëg ne ñun ñooñu ay ceddo lañu tey nag looloo fi nekk topp ay nit ñoo xam ne seeni njëriñ la ñuy xool xooluñu li yàlla bëgg xooluñu lan mooy jëriñ jullit yi xooluñu lan mooy dooleel diina ji xoolay xooluñu lan mooy defar jikko yi ñu sànni fële li yàlla wax ak yonentam ndax seeni intérêt seeni poos koo wax ñu ne waaw am na loo fi def ci dëkk bi yow la ñuy topp yow la ñuy topp bu fekkee da ngay topp yàlla da ngay topp yonent abu bakrin siddiq radiallahu anhu wa arda keroog ba mu falo allahu akbar mu taxaw ci kanamu julli di di xutba waaw bokk na ci xutbaam li mu waxoon julli yi ati wuni ma ataatu llaha wa rasula topp leen ma feeg maa ngi topp yàlla ak yonent waaw gaay su ma toppatul yàlla ak yonent nu ngeen di def benn waay buddi jaaseem ci biir poos mi ne ko kii mooy wax ak yow mu ne maa ngi sant yàlla ba yàlla defee ci biir xeetu lislaam koo xam ne bu amirul muminina bu xalifa yonent bi jàddee mu daal di koy jubanti moo mbokk yi tey sunu xeet wii ana ñan ñooy jubanti njiit yi ana fan la ñuy jëlee ay nit yu ñeme sunuy njiit di leen wax dëgg te wax dëgg bi du leen lu dul yóbbu leen jaami yàlla yi ci yàlla yàlla aw doxalinam nañ ko doxal ci kaw suuf yàlla aw tëralinam nañ ko tëral ci kaw suuf yàlla bëgg-bëggam ak li mu namm nanu fexe ba jaamu yàlla yi nekk ci mbokk yi nit ñi bu ñu àttee diine yàlla nañu yëg ne ay jullit lañu suñu bàyyee diine yàlla nañu yëg ne ay yéeféer lañ kenn du ko mage kenn du ko ndawe kenn du ko ree kenn du ko tuutee kenn du ko xame kenn du ko ñàkk xame saa yoo toppee ci li yàlla bëgg ab jullit nga saa yoo sànnee li yàlla bëgg ab yéeféer nga ak koo mën a nekk islaam moom moo yëkkati bilaal mi ngi ñuul ku ku nekk Éthiopie nekkoon ab jaam daa di daaneel abu lahab mu xonk cuy nekk quraysh nekk deretu yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla ne ma nga safara tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maaluhu wa ma kasab sa yasla naaran yàlla ne safara la jëm pourtant quraysh la de pourtant borom yax bu rëy la de comme niñ koy waxee ci yax bu rëy la bokk pourtant moog yonent bi ñoo bokk de bàyyi taxa bàyyi bàyyi yonent bi la waaye anamu ba mu sànnee li yàlla bëgg la ko yàlla ne safara la jëm ana bilal éthiopien nekk jaamu umayya keroog ba mu sànnee loolu la waa quraysin doon topp hubal ak laataak uza mu taxaw ci kanamu yonente bi ne ashhadu an la ilaha illa allah la ko yàlla rek yëkkati comme ni mu yëkkatee yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk julit yi nañu xam ne nit ñi wallazi la yamba la yabtagi hukma allah yabtagi hukma aljahiliya képp ku jëlul atte yàlla jël nga atte ceddo jël nga atte bu du wuuteeg lislaam jël nga atte bu yàlla gërëmul wallazi yarfudu shariat allah yaqbilu shariat aljahiliya wa yaishu fi ljahiliya képp koo xam ne da ngaa sànni sharia yàlla nga jël sharia jahiliya na nga yëg ne jahiliya ngay dund te kuy dund jahiliya bu dee safara lay dekkee kon jot na sunnuy woo ci lu dul yàlla du yonent jot nañu lànk ne déedéet wuy wunu sunnuy woo ci lu dul alquran jot nañu lànk sunnuy woo ci lu dul sunna yonent jot nañu ne déedéet sunnuy woo ci lu dul laa ilaha illallah muhammad rasulullah jot na mbokk yi ñu ne déedéet gis ngeen ni politiciens yi sonnee waxtu yi ñu nekk pour seen bëgg-bëgg am lan moo tax jullit yi duñu sonn pour li yàlla bëgg am waaw démb dama dajeek ay mbokk ay nit ñi ma àndaloon ñu dajeeg ay nit ñu ngi yor moto di publicité Marlboro ki ma àndaloon mu ne ma xoolal ñii xam nga lu ñuy def nii ma ne ko waaw mu ne Marlboro la ñuy publicité ma ne ko allahu akbar waaye xoolal lu jullit yi ana kuy publicité diineem ana kuy liggéeyal diineem yal na yàlla yërëm Xaalid ibnul Walid Xaalid ibnul Walid mooy koo xam ne yaramam bi foo xool rek jam nañ fa xeej wala caw nañ fa jaasi wala dóor nañ fa fett yaram bi yëpp nag ba mu daj yaram bi yëpp ay daax daax la dañ koo ñaw ndax ay caa ay jaasi ak ay xeej yuñ ko jam ak ay fett bi muy waaj a dee ci kaw lalam la ko fekk muy sukuraat feebar bi metti gaa yi wër ko Xaalid looy wax mu ne ragal yi yal na nu dee ñu ne ah mu ne uffin li ayunul jubana tappet yi yal nañu dee gars yi ne ko Xaalid lu xew mu ne xool leen sama yaram bi yépp ay daax daax la mu ne maa ngi bëggoon dee ci terrain bi ñu dóor ma jaasi ma dee wala ñu caw ma xeej wala ñu dóor ma fett ma dee waaye tey maa ngi nii di dee sa- di dee ci sama kawlal mi- di mit bu muy wax noonu di dénk nit ñi mu dégg dégg dégg fas yi daa di yuuxu allahu akbar fas yi di romb ci fenêtre am yuuxu fasu sahaaba yi mu ne waaw fas yooyu fuñ jëm gars yi ne ko dañuy tasaare ji diine lislaam xaalit mu ne bërëg ci kawlal bi daal di toog mu ne ndax dañuy tasaare diine xaalit di dee ci kawlalam loolu mënul nekk mu daw songu jaasi ji daw daal di daanu ci buntu kër gi foofu la dee allahu akbar ayna ana ñun ak xaalid ayna nahnu min xaalid ibnul walid ana ñun ñun tey ak xaalid ak sunu diine fan la ñu jàpp sunu diine ak xaalid fu mu jàppoon diine moom lii mooy problème mu jullit yi mooy lislaam dañ koo lokk lislaam ci seeni cati baaraam lañ ko jàpp li leen yàlla waxoon la ñu sànni topp seeni bëgg-bëgg topp seeni bëgg-bëgg ay kilifa ak topp seeni bëgg-bëgg ay njiit yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal nu sori ko alhamdulillahi wahda wala nabudu gayra mukhlisina lahu din ولو كره الكافرون عباد الله ومن أجل هذا فمن أحسن من الله حكما ginnaaw li mbokk yi kan moo gën a rafet yàlla ay atte wa man za allazi yajriu ala idaai annahu yashrau linnas wa yaxkumu fihim xayran mimma yashrau allahu lahum wa yaxkumu fihim allahu akbar mbokk yi ginnaaw lii ana kan ci mbindeef yi ana kan ci doomu aadama yi mooy ñëw ci ñun di nu woo ci ay loi yoo xamante ne loi yi ceddo la loi jaahil la mu ñu yoonalal yoon yoo xam ne dafa wuuteeg yoonu yàlla subhaanahu wa taala mu wax ñu ne lii ma leen indil moo gën li leen yàlla indil mu wax ñu ne lii ma leen tegal moo gën a baax ci seen dund li leen yàlla indil ndax li leen yàlla indil da leen di tardeel tey loo loolu boo duggee ci dëkk yi nga dégg jullit yi koo ne sharia ñu ne sharia day tardeel nit parce que sharia day dagg loxo xanaa yéen ay sàcc ngeen moo tax ngeen di bañ sharia ñëw sharia day raj mu ku njaaloo xanaa yow njaaloo kan nga te pourtant li ñuy bañ ci sharia naan ku rey nit daf lay rey ku sàcc day dagg sa loxo ku njaaloo daf lay def nangam ku def nangam daf lay def nangam pourtant loolu day nangu nañ ko de benn waaye ngi nii dafa feebar biñ ko yóbbee ci docteur bi docteur bi ne kii ñu ne ah foog ñu dagg tànk bi pour mu dund dama leen ngeen woo seen famille yi ñu ree ñu réunir ngeen xool lu ñuy def ñu woo njaboot gi yëpp ñu toog ñoo docteur yi nee nañ paa bi bu ñu daggul tànk bi day dee njaboot gi lu ñuy wax luñ ñu ciy laaj nañ dagg tànk bi dund kay moo gën dagg tànk waaw lu tax yàlla mu ne sàcc bii suñu daggul loxo bi day continuer di sàcc ñu ne yàlla kenn du dagg loxo bi docteur yi ñu ne sàcc bii ku jabet kii bu nu daggul tànk bi day dee ñu ne nan ko dagg lu tax ñu nangul docteur bi nangulu nu yàlla loolu mooy tontu bi mbokk yi yàlla day wax nañ def nangam ñu bañ docteur yi ne wala ñeneen ñi ne nañ def nangam ñu nangu ko loolu mooy rafetlu doxalin bi nit ñi indi ci kaw suuf bàyyi bosu yàlla waaw ki ñëw ci kaw suuf indi ay poème daan ne defal leen ma lii su ngeen ko defee ci ngeen di dund àjjana ci kaw suuf te yàlla moom indi woon ay poème yu ñu war a dund ba pare mbokk yi ndax waajooju li mu indi wala yàlla li mu indi lu gën wa ayu hujjatin yamlik an yusawiqaha bayna yaday hadha al idaai al arid ana ban kéeféer ana ban ceddo moo gën a garaaw ci doomu aadama bàyyi li yàlla bëgg dem def li mbindeef bëgg a yastati an yaqula innahu alamu nnaas min xaaliqi nnaas waajooju dafa bëgg ne yàlla mi bind nit ñi man yàlla maa gën a xam yàlla ñi mu bind ndax nangu ngeen am na ku ñu gën a xam yàlla mi nu bind ak keneen ki nga xam ne mbindeef la ne nun mbokk yi loolu ku ko nangu génn nga ci islaam a yastatiu an yaqula innahu arhamu nnas min rabbi nnas waa ji nga xam ne dafa indi ay loi tëral yàlla indi ay loi tëral mu ne nañ def samay loi ñu bàyyi loi yi yàlla léegi moom dafa bëgg a wax ne moom moo gën a yërëm yàlla ak jaami yàlla yi ndax gis ngeen ci kaw suuf ku gënam yàlla ku gënam yërëm yàlla jaamam yi déedéet yàlla moo nu gën a yërëm yeneen bi alayhi salaatu wasalaam gis na benn yaay bu yor doomam di ko nàmpal yonent bi ne sahaaba yi ndax ndaw si suñ ko ne woon mu sànni doomam ji ci matt yi di tàkk ndax dina ko sànni ñu ne subhanallah allahu akbar loolu kay du ko xalaatu ko sax loolu kay bu ko kenn xalaat du ko musa def yonent bi ne leen wallahi yàlla moo gën a yërëm doom ji ak yaay ji waaw loolooy li am yàlla wax na malakal mawti yow malakal mawti ndax mës nga yërëm nit ñi ma la yónni nang leen rey ndax mës nga ci yërëm kenn malakal mawti ne yàlla waaw waaw am na ku ma mës a yërëm yàlla mu ne lu taxoon nga yërëm ko mu ne yow yàlla yaa ma yónni woon ci dëkk sàngam naa fa rey benn jigéen bi ma wàccee ci àll bi ndeke ndaw si da doon taxan mat xiin gi daal di koy fekk jamono nawet la woon xiim bi daal di koy fay fekk ak lëndëm gi ak dënu yi ak taw bi ak walangaanu ndox mi daal di fekk ndaw sa ca àll ba fa mu doon ute mat ndeysaan dënu yi daal di koy jàpp mu tiit bi mu tiitee mat daal di koy dab doom ji commencé génn te amul ci àll bi ku ko yërëm ku ko dimbali ndeysaan moom kenn cundum ak àll bi malakal mawti daal di ko fay fekk yàlla mu ne subhanahu wa taala malakal mawti reyal yaay ji malakal mawti nee na bi ma ñëwee ba fekk yaay ji di am doom doom ji di génn ma war ko rey keroog wax dëgg yàlla yërëm naa liir boobu ndax su ma reyee yaay ji kan mooy fekk liir bi fii ci àll bi defar ko toppatoo ko yàlla mu ne ko malakal mawti ndax mus ngaa tiit mu ne waaw waaw mus naa tiit kay kañ la loolu mu ne benn bis yónni nga woon nga ma ci benn dëkk naa dem ma rey buuru dëkk ba bi ma nee cëpp ci dëkk bi damaa fekk buur bi ñu garde ko ba weñ ñemewu koo laal weñ ñii dinaaw ñemewul tak ci kaw yàlla mu ne ko gis nga liir boobu nga bàyyi woon ca àll ba moog yaayam bi mu faatoo mu ne waaw mu ne liir boobu laa yar ba mu màgg moom mooy buur boobu toog kon kan moo yor mbir yi yàlla moo yor mbir yi yàlla moo xam li baax ci ñun yàlla moo xam li bon ci ñun alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabiir yàlla xam sunu tey sunu suba sunu ëllëg yàlla xam lépp subhanahu wa taala ñoom yaarifuna zahiran min hayati dunia yenn rek lañ xam tuuti yu feeñ ci kaw àdduna amma alaxira xamuñu fa dara kon mbokk julit yi bu ñu kenn wax ne yow yaa ñu gën a yërëm sunu boroom ba ñuy indil ay luwaa yoo xam ne luwaa yooyu ay musiba dong dong dong dong dong dong la ñuy indil xool leen tey jamono bi nu mel trafiquant drogue yi ñu jàppoon yëpp bàyyi nañ leen ñi doon falsifier xaalis ñi ñu jàppoon yëpp bàyyi nañ leen ñi reyoon ay nit yi suul leen ñenn ñi di dund ñenn ñi dee ñëpp bàyyi nañ leen ana luwaa boobu est-ce que loolu luwaa yàlla la est-ce que loolu mooy doxalinu yàlla est-ce que loolu mooy maandute kon kun woo daf ñoo woo ci ay bëgg-bëggam waaye woowunu ci lu yàlla bëgg subhanahu wa taala ixwatal iman أن يستطيع أن يقول هو إنه أعرف بمساهل الناس من إله الناس moom mi nuy woo naan ñu nangam ak nangam daf ñoo bëgg a wax ne moom moo gën a xam yàlla lu baax ci ñun yàlla mi borom nit ñi déedéet a yastatiu an yaqula innahu subhanahu wa huwa yashri shari'atahu al-akhir wa yursilu rusulahu al-akhir wa yaj'alu rusulahu khatama an-nabiyyin wa yaj'alu risalatahu xaatama risalat wa yaj'alu shari'atahu shari'at al abad moom yàlla mi bind moom mi yoonal yoonam daa di wàcce aw doxalinam yónni ab yonentam jox ko téeréem yoon woowu mu wàcce moom yàlla muy yoon wu mujj mu yónni ci yonentam bu mujj yonent boobu nga xam ne moo mottali yonent yi moom yàlla moomu moo namm ñu dund shari'am moom yàlla moo dund ñu dundi aw doxilanam aw tëralinam ñu topp yonent boobu ci njàngale yi nga xam ne moom la ñu jàngal mbokki julit yi képp koo xam ne da ngaa changé li yàlla bëgg nga indil li ñu ceddo wa hukmul jahiliya wa yajalu hawaahu hawa mu jël ñu jël seeni bànneex daa di koy indi dindi li yàlla bëgg nanu yëg ne atte yooyu alkande la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin yonent bi ñetti yoon la giñ mu ne laa yumin ahadukum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bihi kenn ku nekk ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul mu sànni ay bëgg-bëggam daal di topp man yonent bi li ma indi kon ñun waa Sénégal nanu yëg ne fekk sànni wu ñu lii ñu ñuy indil ay laïcité ay jikko ceddo yi ñuy indil ak ay mbiru yi nga xam ne dara du ci diine fekk sànni wuñ ko ci àll ba topp li yàlla bëgg dañuy nax suñu bopp rek nañu yëg ne atte yàlla mooy dëgg yàlla nee na wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinuun waaye foofu mooy wax ci li qawmin yuqinuun nit ñi gëm yàlla nit ñi nangul yàlla nit ñi nga xam ne peek nañu xam-xam bu leer xam ne li yàlla wax mooy dëgg yàlla nee na ñooñu ñooy ñi ma gëm jàngeen ci suratul baqara yàlla bi muy wax zalika alkitab laa rayba fi hudan lil muttaqin alladina yuminuna bilgayb wa yuqimuna alsala wa mima razaqnahum yunfiqun walladina yuminuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil axirati hum yuqinun il faut nit ñi am kóolute il il faut nit ñu am ngëm-ngëm il faut nit ñi am doylu il faut nit ñi am kóolute ci li leen yàlla subhaanahu wa taala indil ak li leen seen borom di wax ab jullit warta dund benn tëralin bu dul bu yàllaa ko bi yonent bi bëgg musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam anden allahu subhanahu wa taala o maaki e alquran o wii afa hukma aljahiliyati yabgun wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yuqinun allah subhanahu wa taala wi omo namdi julɓe ɓe namdal o wi ɓe mbele on ɓurnat ñaawooje ɗe ngannduɗaa ko ñaawooje ɓi adama addi e dow ñaawooje allah est ce que julɗo o ƴettat ñaawooje woɗɓe ɓe ngannduɗaa ko yimɓe naate cuuɗi ñooti haa feewi addani yimɓe ɓe wi ndewee ɗum ɗo mbele ko ɗum ɗon ndewa toon walla ko allahu subhanahu wa taala wi allah wi waman ahsanu min allahi hukman holmo ɓuri yoodde allahu subhanahu wa taala ñawore ewi ndere nde beele ina woodi seɗen jaabo en wiya woodani ko allah wi ko ko ɗum yoodi saabu allah tagɗo ene omo andi ko moƴƴi e men ɗum tagi o addani en ɗum ɗon o wi en guurɗum hande nen so noddama e laabi ɗi ganduɗa wona laabi allah holno fotɗen wadde ken fotɓe salade en fala notoyade ɗiɗon laabi par ce que wona l'islam kala yaaɗo notoyide hen janggo ma daro e yeeso allah mawa haal holko tagno o notoyi allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله